Euh, naka la ñuy def itam ba génn ci dañuy dalal ku ci xelam màcc lool mu jiite woon fi sax euh, kuréel gi nga xam ne moo koy saytu ci réew mi wàllum sécurité alimentaire nekk ci itam boroom xam-xam consultant indépendant en sécurité alimentaire et résilience euh, muy Ali Mohamed Sega Camara ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci démb ak tay bi ngir waxtaane lii ma fi junjo waaleykum salaam rahmatullah soxna Fatou mm-hmm. maa ngi lay fay di nuyu kilifa Rewmi FM ak euh, mboolem auditeur mhm. alors ñuy euh, jaajëfal waaw mhm. ñu ngi lay gërëm bu baax yow itam euh, ci waxtaan wi nga ñu may ngir ñu mën a gindeeku ci wàllum sécurité wala souveraineté alimentaire ni ma ko waxee président Macky Sall yëkkati ko fi jamono yii alors bala ñuy ñëw lan lañu ñu mun a jàppee souveraineté alimentaire waaw xam nga euh, Fatou euh, ni nga ko waxee sax ci kanam ci ci njëlbeen hmm. euh, ñetti système sax ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo am hmm. bi ñuy wax souveraineté alimentaire ak bi wax sécurité alimentaire ak bi ñuy wax suffisance alimentaire hmm. voilà ñetti ñi nag dafa am lu leen wutale soo jëlee lii nga xamante ni mooy euh, souveraineté alimentaire euh, dafa nekk euh, xalaat bi nga xamante ni réew mu boo gis day bëgg lépp li nga xamante ni soxla na ko mu koy béy wala di ko di ko di ko di ko defar ci biir réew mi li jëm ci wàllum dund mm-hmm. di ko defar ci biir réew mi di ko jëfandikoo ci biir réew mi. ci mu méngoo ak li nga xamante ni dafa nekk seen aad ak seen caada ba pare man leen jàppale ci wér wàllam wàllum wér-gu-yaram ak alam bi bañ a yàq alam loolu mooy souveraineté alimentaire léegi boo jëlee sécurité alimentaire sécurité alimentaire dafa di li nga xamante ni dañu wax ni nit euh, nit ñi dañu war a am saa su ne euh, lu nuy dundee dund ci sell Euh, ba pare euh, mu doy. te hmm. nga xamante ni du du du du nekk li nga xamante ne forcément dañ koy dégg ci biir réew mi. Hmm. mais na na na am nit ñi man cee jot ci ci ci ci anam bu rafet. Hmm. Euh, ci waxtu buñ ko soxlaa man ko jëfandiku. Uh, ba pare uh, njëg yi tamit nag vraiment donc nekk ay njëg yu nga xamante ne mën naa mën naa may nit ñi. ñu man ni man cee jënd voilà. loolu mooy mooy mooy sécurité alimentaire mm-hmm. donc euh, sécurité alimentaire dafa nekk mbébét parce que am na yenn yi nga xamante ne ci biir sécurité alimentaire danga il nga jéggaane ko mm-hmm. alors que souveraineté alimentaire nag doo ko jéggaane da nga ko war a béy ci biir réew mi maanaam bu dee béy la nga béy ko ci biir réew mi mm-hmm. bu dee li nga xamante ne dañ ko war a witt dañ koy witt ci kii bi ci biir réew mi li nga xamante ne dañ koy yar ñu ray ko yar ko ci biir réew mi mais di ko jëfandikoo aussi mbaa da ngay moom sa bopp ci lépp daal soxlaaloo dara bitim réew bon loolu nag boo bu fekkente ne da ngay mot sa bopp ci lépp. Mhm. loolu moom la lañuy wax autosuffisance alimentaire. d'accord donc loolu ci biir réew mi rek la. Mhm. lépp li nga soxla ci biir réew mi ci wàllum dund. Mhm. da ci biir dëkk euh, sa biir réew. moo moo moo mu mu doy waa réew mi. te xam nga loolu dafa nekk li nga xamante ni. Euh, euh, xel mënul may doomu aadama parce que. su fekkente ne yow da ngaa soxla sa sawaar waa réew dañoo soxla pomme pomme kenn du ko fi béy. Mm-hmm. donc xam nga loolu mooy autosuffisance alimentaire dafa xaw a doy waar. waaw euh, léegi boo xoolee Sénégal gi euh, xëy na dinañ ci ñëw. Mm-hmm. Euh, am na ay ay jéego yi nga xamante ni def nañ ko. Mm-hmm. mais wone na ni effectivement que xalaat boobu. du xalaat bu baax. Hmm. tey Sénégal boo doon diagnostiqué ba xam ban jàngoro moo ñu dal diggante peut-être insuffisance alimentaire insécurité wala euh, manque de souveraineté ñun lan moo ñu ci dal bu doon wopp la tey. Euh, xam nga Sénégal dafa boole ñett yëpp. feebar yëpp moo ñu dal ñett yëpp ñetti feebar yëpp dañoo dal. Euh, xam nga bu fekkente ni sécurité alimentaire la xam nga réew mi tey jii. Hmm. Euh, sécurité alimentaire concept la bi nga xamante dafa évoluer sax ànd ak euh, ndóol mm-hmm. euh, soo gisee par exemple am na benn jumtukaay bi ñuy wax ni cadre harmonisé mm-hmm. buy natt ñan ñoo dugg ci insécurité alimentaire mm-hmm. dem na ba cinq niveau yi nga xamante ni niveau yu yu yu ki yu la Euh, deuxième niveau bi ak troisième niveau bi ba quatrième ak cinquième niveau bi tey jii bépp doomu aadama bu ci dugg dañu lay considérer que nit nga ba nga xamante ni ndóol dala dala dal laal donc mooy que euh, insécurité alimentaire léegi léegi nekk na euh, indicateur de pauvreté te boo ci nekk nekkee ci niveau deux bi nekk niveau trois niveau quatre ak niveau cinq te jamono ji ñu ci bare ci biir Sénégal même nguuru Sénégal gi euh, xalaatam demul ci euh, li ma la li ma la jógee wax mm-hmm. donc du du ñu compter ñi nga xamante ne dañoo dañ euh, insécurité alimentaire da laal mm-hmm. ba ñu leen di ba ñu leen di boole ci ñun dool mm-hmm. alors que ci àdduna bi nit ñi dañoo évoluer ba foofu tey jamono ji loolu di benn ñaareel bi mooy que Sénégal gi Euh, barki Dembo Ndiaye rek la président Macky Sall ne da dafa sas euh, ministre Aly Ngouille Ndiaye mu bindal ko euh, benn document ba nga xamante ne mooy politique souveraineté alimentaire. Mhm. ma teg ni vraiment loolu nga xamante ne teg na ko ci ndondo Aly Ngouille Ndiaye. Mhm. daf ko teg li nga xamante ni déppoowul ak moom. Mhm. jéego yi nga xamante ne moom la def le 6 juin de deux mille 2022. mooy la ca ci assemblée nationale. Hmm. xam nga ci assemblée nationale dafa modifier loi bi nga xamante ne moom mooy euh, may nit ñi ñu euh, dugal ci biir réew mi ay organisme génétiquement modifie mooy OGM. OGM waaw. mais booy wax souveraineté alimentaire OGM bokku ci OGM dafa dafa yàq alam OGM dafa yàq mbéy mi OGM dafa yàq dundu ne doomu aadama yi OGM dafa yàq seen seen seen wér gu yaram souveraineté alimentaire dafa de wér gu yaram Euh, te OGM dafa bokkul ci sunu aada ak sunu caada donc euh, technologie yi nga xamante ne dañuy yàq alam bi dañuy yàq mbéy mi dañuy yàq dund dund gi dañuy yàq vraiment euh, wér-gu-yaramu nit ñi loolu souveraineté alimentaire daf ko dàq léegi nag noo mën a def loi mois de juin nga ñëw ci mois de septembre diggante juin ak septembre juillet ak août rek a ci nekk mois de septembre nga ñëw ne nit ñi damaa bëgg politique souveraineté alimentaire te nga xamante ni jéego ji nga xamante ne def nga ko fii euh, dafa dafa doy waar expérience wone na ci Paris ne ay chercheurs yi wone ni vraiment ci biiru ñaari ñetti semaines yi nga xamante ne ay ay ay kaña dañ leen dundal ak ay OGM kaña yooyu yëpp amul benn exception ñëpp def dañu développé cancer hmm. donc xam nga ni loolu boo ko fi dugalee nga nga sentaane vraiment donc euh, ci biir sartu réew mi nga sentaane ñu ñi di ko di ko fi dugal bay ko te boo ko bayee tamit donc danga ñi ñi ñi nga dendal te ñu loolu day yàq seen i mbéy te xam nga ni euh, meññeef yooyu euh, lii di sax lii di gunóor duñ ko laal donc bu fekkente ni loolu mm. loolu boo ko defee ba pare mm. nga naan léegi damaa bëgg souveraineté alimentaire lu muy niroo ça veut dire que donc li ngay def sa xamuloo ko mm. mbir mi loolu la. Mhm. autosuffisance alimentaire fii lañ ko waxoon. Mhm. moom président Macky Sall dama ko wax ni auto autosuffisance alimentaire en riz bi nga xamante ne wax nañ la ko ci biiru ñaari at ñetti at nañ ko mën a atteindre. ci biir Sénégal dama ko ne loolu 2017 la ñu waxoon. voilà dama leen dama la dama ko wax carrément ma ne te bind naa ko ma ne que loolu li nga xamante ne wax nañ la ko waxuñu waxuñu la waxuñu la benn dëgg. Hmm. loolu mënu fi am. mbir la mi nga xamante ne dañ koy teg nga liggéey ca ca ay at nga ci li nga mën a liggéey. Hmm. waaye nag il faut nga jox ko gëddëm nga def full ak fayda ba nga xamante ni loolu dina war a mën a mat sëkk te autosuffisance alimentaire en riz dafay mel ni sax vraiment donc ceeb rek mu nga xamante ni moom la soxla sénégalais soxla non du loolu la sénégalais soxla sénégalais ci seeni cosaan dugub la mhm. ak mboq ak euh, euh, maanaam ñebe euh, waaw yeneen céréales yi mais moom président Macky Sall moo fi waxoon ni dafay def benn corridor céréalière corridor céréalière booba ana moom bi bi mu toogee 2012 ak léegi gisuñu ko donc da nga da da da dañuy wootee mbir mi nga xamante ni euh, duñ ci jublu loolu mooy problème mu Sénégal moo tax ma ne la ñetti yëpp lañ feebar. Hmm. amuñu souveraineté alimentaire amuñu sécurité alimentaire amuñu autosuffisance alimentaire. metti na alors est-ce que Sénégal ci euh, situation boobu rek la mës a nekk maanaam ñu dellu démb tuuti ndaxam amoon na jamono yoo xam ni xëy na benn jàngoro bi wala ñaaree ñu daloon wala ñett yëpp ñu mës a dal. xam nga amoon na jamono ji nga xamante ne jamonoy sunu maam ya mhm. euh, nit ñi doon doon béy li ñu nga xamante ne loolu la soxla mhm. euh, li méngoo ak seeni i aada ak seen caada mën nañ mën nañ ko dundee euh, ba ba beneen ba beneen góob ñëw mhm. bu nu góobee bii ren gi daan ko dugal ci ay ay ay ay magasin waaw denc ko foofu di ci dund di ci dund ba beneen beneen beneen beneen saison ñëw maanaam ñu góobaat encore euh, ñëw teg ko hmm. euh, ma xam ni am na yenn pàcc yi nga xamante ne ci Casamance la ñu nekk Casamance Atlantique bi may wax bi ñuy wax basse Casamance hmm. maanaam zone usu yeeg yooyu Ziguinchor yi bi ñoo na amoon na jamono ñi nga xamante ne dañ daan dañ daan dañ daan denc ceeb ñu ciy dund hmm. bu ceeb boobu bu demee ba ba mu paase ba at bi paase dañ koy dindi ñu wol ko Euh, def ko sunguf di ko def laso pour peinture ay kër hmm. nga xam ni ceeb yooyu mënatu leen jëriñ dara parce que amatuñ place nga xamante ne mën nañ ko fa dugal hmm. donc da ngay xam ni ñooñu dañoo doylu woon hmm. ca la nga xamante ne moom lañ doon béy moom lañ doon euh, produire parce que il faut aussi ñu xam ni euh, mbay mi mënul mënu mënu assurer sécurité alimentaire mbay mi rek mënu nit ñi dañuy yaakaar ni daal boo demee ba mën a bëgg lu lu lu lu li nga so li nga soxal. Mm. Euh, li nga soxla. Mm-hmm. ma ba mu mat sëkk donc dugg nga ci sécurité alimentaire. Euh, du mbéy bi mbéy mi rek a koy indi parce que damay faral di ko wax experts yi ak euh, kilifa réew yi ci biir Afrique. Mm-hmm. nii xam nga lem kenn du ko béy. Mm-hmm. te ci dund ci dund gi la bokk. meew kenn du ko béy dañ koy ratt. jën kenn du ko béy mm-hmm. dañ koy napp mm-hmm. yaa ngi may dégg mm-hmm. am na yenn yi nga xamante ni dañ dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy defar euh, ci transformation lay mën a nekk mënuloo am tigaade ga fekk ne vraiment jaaruloo ci transformation man am tamaate lokoti ma nga xamante ni vraiment donc euh, euh, euh, njàmbaanu la tamaate mhm. tamaate doom mhm. xam nga ca usine ya mhm. yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ni moom la ñuy wax ni vraiment dafay participer ci sécurité alimentaire bo donc bu fekkente ne yow danga nga yaakaar ne ci mbéy mi rek la loolu dafay dafay doy waar donc boole woo ci càmm ji boole ci napp bi boole ci alam bi nga xamante ne mën nañ cee dugg fekk fa lu mel ni lu mel ni buy ba nga xamante ni buy kese rek ñetti yoon lay lay am vitamine C ci kaw euh, orange donc hmm. nga xam ni loolu dafay dimbale nit ñi ci ci wàllum euh, kii bi nu mu ci euh, wàllum dund gi hmm. donc nutrition bi hmm. donc loolu Fatou dafa nekk li nga xamante ni malheureusement amatul ci sunu biir réew mi ba ñu jëlee indépendance bi surtout Euh, bekkoor bi bi mu duggee ci année soixante dix yi. Mm-hmm. ci sunu réew ak réewu Sahel yi. Euh, politique politique bi nga xamante ne la la ñu war a taxawal. Mm-hmm. ba jublu ci loolu mën mënal sunu bopp ci wàllum dund gi. Euh, amatul. Mm-hmm. ci biir réew mi. alors dem nañu ba nga xamante ni sax réew mi amuloon sax politique de sécurité alimentaire mais bi ma ñëwee. Euh, deux mille treize mm-hmm. deux mille quatorze la taxawal politique sécurité alimentaire mm-hmm. euh, def bind benn stratégie stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience mm-hmm. mais lan la ñu def dañ ko dugal ci tiroir ba ma demee rek dañ ko dugal ci tiroir ba binduwaale même benn programme bi nga xamante ne moom la ñuy wax programme national d' à la sécurité alimentaire et à la résilience balaa ngay jublu ci autosuffisance alimentaire euh, ci souveraineté alimentaire réglel d' sa sécurité alimentaire yaakaar naa ko bu fekkente ne bëgg nga OG bi dugg. Hmm. doo jublu ci souveraineté alimentaire mais yaakaar naa li man sama xalaat bu gàtt li pousse président Macky Sall ba muy wax ne souveraineté alimentaire mu fàttee ni que moom moo njëkk a dugal OGM hmm. moom moo moom moo pousse OGM yi hmm. fu ñu nekk ak tey ji parce que dafa nekk président Union africaine te at bii dafa nekk at bi nga xamante ne Union africaine da ko jagleel ci souveraineté alimentaire ak nutrition hmm. donc munul nekk ci bopp kuréel boobule réew moom mi vraiment donc nekkul ci ci tendance su sécurité alimentaire su hmm. alimentaire loolu moo ko loolu moo ko dal mu xëy rek ne borom man bëgg naa politique sécurité et souveraineté mais bu ñu ko xoolee ci dëgg rek Sénégal tegoogul ci yoon bi mais tegu loolu si tegoogul ci yoon bi Sénégal tegoogul ci yoon bi hmm. ndaxte li nga xamante ni moom la ñu war a béy te mu doy mooy dugub mooy ñebe mm-hmm. mooy mboq mooy mooy mooy mooy mooy basi mm-hmm. ah ak ceeb yooyu yëpp mënuñu ko waaw amuñu ci lu donc boo ci dugal boo xëyee nga dugal ci OGM rek yàq nga mbir mi. Mm-hmm. te nga amoon sax donc il faut il faut que Aly Ngouille man a xam ni bépp politique de souveraineté alimentaire bu mu mën a bind tey jii. Mm. pour jagleel ko président de la république dafa war a war a fël loi bi nga xamante ne moom la ñu wootee le 6 juin. ci mm. assemblée nationale muy liy may OGM bi ñu dugg ci OGM bi. Mm-hmm. dañ ko war a dindi. alors jamono bi ñuy wax euh, itam souveraineté alimentaire euh, moom sa bopp ci wàllu li ngay dundee euh, ñu ngi wax ne ay nit yu bari ci kaw gi bu ñu mayuwul danañu yegg ci famine maanaam xiif ba dootuñu amati lu ñu lekk nga nekkoon secrétaire exécutif conseil national à la sécurité alimentaire ngeen ci doon def itam ay jàngat alors loo fa bàyyi woon ak tey fu nu toll ci li nga ci xam. waaw mais xam nga loolu man ba ma fay jógee. Hmm. Sénégal doon jàppale waa kaw ga. ci wàllum dund. Euh, ma yaakaar ni man mi nga xamante ne doon naa ko def euh, du yoon sax ñu mën a def lu mel noonu sax ci. buñ koy def dañ ko war a def parce que euh, doomu aadama yi war nañu sauver seeni bakkan ak mala yi. parce que lii nga xamante ni war loolu la ñu waroon a mën a am amuñu ko donc tant que réew. sa sa mbéy hmm. ma nga dépendre ca taw ga te taw yàlla moo ko moom moo ko wax ci alquran na fa ne taw bi maa koy wàcce waxtu bu ma neex waxtu bu ma neex ma téye ko donc bu fekkente ni loolu politique réew ci euh, agriculture taw bi rek la ko bàyyi hmm. euh, xam nga ni loolu munul munul jëme kër ci ci ci ci kanam hmm. lu tax parce que réew Sahel la ñu nekk Euh, bekoor day faral di nekk ci Sahel bu bekkoor di faral di nekk ci Sahel mhm. donc da nga gis ni que lépp li nga xamante ne da nga koy béy euh, dana gàllankoor mhm. donc gàllankoor yooyu il faut ñu ra ñu ñu jëm ko dindi pour mën a avancer malheureusement jamono ji nga xamante ne nekk naa foofu moo moo tax ma indi Euh, politique euh, souveraineté alimentaire muy stratégie nationale ak programme national de d'appui à la sécurité alimentaire hmm. buñ ci jublu ñu taxawal ko temb euh, fekk sore ñu tey jii ci mbir moomule xiit bi nga xamante ni moom la ñuy laame-laamee ni dina dugg ci biir réew mi fekk dina dina mën a dina mën a wàññeeku wala mu dakk hmm. loolu mënoon na am mais jamono ji ji may wax ak yow hmm. ñi nga xamante ni vraiment ñu ngi jànkonteel ak jafe-jafe dund yooyu Euh, toll nañu ci a euh, euh, boo jëlee niveau deux insécurité nu mu tuddati cadre harmonisé bi niveau trois bi yëpp boo leen boolee hmm. dem nañu ba presque quatre millions hmm. su ma ko naree su ma ko naree su ma su ma ci naree def précision hmm. dama lay wax ni trois millions neuf cent quarante trois mille neuf cent quarante quatre doomu aadamal ci Sénégal donc xam nga loolu jege na quatre millions donc ñi nga xamante ne am nañu jafe-jafe dund te buñ leen jàppalewulee vraiment donc ci ci ci ci ci ay musiba lañ jëm. loolu bari na. Mm. loolu est-ce que état bu Sénégal mën na koo saafara ci jamono yuñ toll. mais su xam nga il faut nga bëgg soo bëggee nga am euh, euh, euh, dërëm yi nga xamante ne nit ñi ni ngi koy pasar pasar pare pasaree ci biir réew mi. Mm. di ko dugal ñi nga fi nga xamante ne waruñ ko fa dugal. no noo mën a noo mën a tabaxal euh, tabax ay kii ay terrain ay stade ci réew ma nga xamante ni dafa dafa daf non seulement dafa ndóol mais dafa ja dafay jànkonteel ak ay jafe-jafe dund ay ak ak xiif nga def ay milliards dugal ko ci jël ay immeuble yi nga xamante ni da nga koy réhabilité mooy euh, boo jëlee li mel ni euh, euh, building administrative def presque quarante milliards. Hmm. wala lu ëpp loolu. Hmm. mais quarante milliards yooyu suñ ko dugalee ci ci ci politique sécurité alimentaire ci plan ci plan ci programme national bi mais fekk fekk ni tey jii du ñu du ñu xalaat lu mel noonu. Hmm. mën nañoo am ndox bu doy. mën nañoo béy béy mbéy mu mbéy mu mu sell. te bi nga xamante ne dina dundal sénégalais. loolu waat naa ko ci yàlla. ku ko teg sama loxo. Hmm. man ma defal la ko ci ñetti at. Hmm. kon Sénégal mun naa yegg ci loolu bu awee ci yoon wi. mais boo awee ci yoon bi te fekkee ne vraiment donc ki jiite réew mi nag nàmm na ko bëgg na ko mais yaakaar naa ne nàmm boobu ak bëgg-bëgg boobu nag moo moo des moo amut. Hmm. alors su boo xante dëgg. tey mbay mu Sénégal boo ko tegoon jafe-jafe bi lan la. Euh, benn euh, ndox moo amul. bu doy ndox mi nga xamante ni man na man nga man ngaa béy noor ak nawet ndox moomu amul la nga xamante ni moom mooy tax euh, euh, jiw nu mu tuddati nga nga nga mën a nga mën a béy foo nga am jiw jiw ju sell mm-hmm. jiw ju sell jooju amul mm-hmm. te bu amee tamit doyul Euh, langa nga xamante ne moo mooy tax ba garab yii di meññ euh, ci meññin bu rafet euh, di di engrais yi donc doyut hmm. te pourtant Sénégal dafa am ay phosphate ca ca ca ca région Matam comme ci région Thiès hmm. yooyu yëpp am na donc même ci région Dakar bi am na donc malheureusement li ñu produire ci engrais ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ko ñu ngi koy yóbbu ci biti te suñu biir réew vraiment donc dafay mel ni daal ude bi nga xamante ne dafay defar ay dàll te moom ci boppam tànku neen lay doxee. amul dàll yu mus donc Séné Sénégal noonu noonu la noonu noonu la mel. ci mm. wàllum mbéy mi. Mm. boo jëlee li nga xamante ne mooy mooy rey gunóor yi nga xamante ne dañuy sonal mm. euh, gàncax bi ak ak nu mu tuddoo ci euh, euh, mbay mi loolu tamit doyut rax ci dolli nag faatu. maanaam bépp li bépp politique bi nga xamante ne dañ ko tëral rek. pour topp ko. Hmm. loolu mooy catu Sénégal. Hmm. topp ko ci ay anam yu rafet xool li nga xamante ni baaxu ci li nga xamante voilà li nga xamante ne baaxu ci nga dindi ko li nga xamante ne baax na nga topp ko euh, euh, euh, yaatal ko ak yàqanal loolu mooy tawatu Sénégal mënoo am du mbéy mu mbéy mu yaatu mu baax hmm. te amuloo vraiment maîtrise ndox moom la ñuy wax maîtrise de l'eau te moo ne ndox am na ci réew mi am na ci xam nga man mi sama jëmoo bopp man Fatou bind naa benn programme bi nga xamante ne hmm. euh, pour ñu mën a dugal ndox ci biir réew mi. Hmm. mu doy. Hmm. Euh, euh, ñu man cee béy jur gi man cee naan lu doy nit ñi ci seeni ci seen gox. ak fi nga xamee ne dañuy def ay rassemblement lu mel ni Touba Ndiassane waaw nag yooyu bu gàmmu yi ak màggal yi amee ñu bañ a am problème jafe-jafe ndox. loolu yëpp bind naa ko jox ko mais en mais président Macky Sall. loxo ak loxo laa ko joxe. la nga xamante ne tey jii ñu ngi koy def ci wakaam di naan euh, euh, dessalement de l'eau de maire man maa ko teg ci biir document boobu jox ko ko. mais en fait du wakaam laa ko wax. la ma ko wax ñetti barab la. Hmm. Lumpul la. Euh, Foundiougne la. Hmm. a Kabrousse ba nga xamante ni buñ ko defee euh, station bu nekk dana mën a pomper cent vingt mille mètres cubes par jour mhm. yaa may dégg. waaw bu baax. cent vingt milliards de litres moom la ñuy pomper par bës hmm. muy dugg di dem di wuti ji bi nga xamante ne dañ koy def ci lumpul mën nañ ko yóbbu ba mën na yóbbu ndox mi ba ba ba Mm-hmm. jaare ko ay Touba saa nag yooy tout saa dem. Mm-hmm. ba nga xamante ni mu ngi koy ñu ngi koy def Foundiougne mën na ko yóbbu ay Medina Baye dem ba Bakel. Mm-hmm. bi nga xamante ne moom la ñuy def Kabrousse euh, mën na ko yóbbu ba Kédougou. amoon na ki nga xamante ne moom président Macky Sall mas na cee laaj ci campagne deux mille douze. février deux mille douze Sédhiou mu ne ma waa mais loolu nuñ koy defee ku ko war a tënk ci ci ci ñaari ci ñaari ci ñaari phrase. ma ne am na contrainte bi nga xamante ne mooy mooy pant bi pant Sénégal sa maanaam Sénégal dafa dafa wéng mm-hmm. euh, jógee pénku jëm ci soo dafa wéngu ci euh, zéro virgule six pour cent mm-hmm. loolu lañu ñu war a rek corriger bu ñu soulever maanaam tuyau yi mm-hmm. euh, donc pante bi dafay dafay dafay jubante ko parce que ndox du yéeg tant que amul pression donc dafay dafay walangaan dafay wàcc yaa ngi may dégg donc mm-hmm. noonu lañ ko mënee moom noonu lañ ko mënee modifié mm-hmm. euh, benn ci beneen bi bi nga xamante ne ay barrage la wala kay dig antisel mm-hmm. buñ ko naree def mu ne ma loolu nañ ko mënee def lu ci gën a gaaw ci meeting la ma ko demandé ma ne que ñaari système moo am am na bi nga xamante ne ndox mi bu demee ba ëpp rek dafay dafay dafa dafay jéggi pont bi mu tuuru loolu am na mais baaxul parce que du génnee xorom beneen bi nga xamante ni ci suuf lay jaar ci suufu pont bi mu mu mu évacuer boo ko tëjee dafay gajafal xorom bi ba pare ensuite bu duggee ci biir xorom bi bu demee ba gajaf rek bu dugg ci biir ndox mi hmm. nga ubbi ndox moomu dem di nga gis ni que vraiment donc tout le temps lessivage boobu mooy lay permettre nga génne ndox mi euh, ndoxu xorom bi hmm. ci biir euh, suuf yi nga xamante ne ñoo ñoo foofu la xorom si dugg hmm. donc loolu mën nañ ko def dem naa fu nga xamante ne fu gën a sore nee naa ko national national une bi mi nga xamee ne moo jógee Dakar. Mm. jaare ko mbuur Fatick dem Kaolack ba Gambie nee naa que bépp tali bi nga xamante ne am na pont. Mm. war nañ ci mën a def ay ouvrage mm. lii nga xamante ni moo jublu ci soow maanaam ci ndeyjoor bi boo jógee Dakar di dem lépp li nekk ci ndeyjoor gi nañ ko bàyyil xorom bi lépp li nekk ci càmmoñ bi boobu mu nekk ndox mu lewet te suuf soosu nga xamante ne ñoo fa war a nekk eh, ñoo fa nekk suuf suuf yooyu mën nañu dindi xorom ci loolu ñu man cee béy li nga xamante ne soxla nañ ko ci biir réew. Hmm. donc loolu yëpp mi ngi ci biir document bi jox naa ko ko. lu mu ci def dara jo lan la ci def. xool leen ndax tali yooyu boo ku ku fi tukki nag na mu na mu ñëw. mu hmm. wax ma ni pont ak ponceau yi fu ñu nekk ndax def nañ fa ouvrage yooyu. yéen nga xam ne mu gën a simple. ñi nga woo population yi nga jàngal leen tàggat leen ci ni nga xamante ne noonu la ñu waree ubbi bu taw bi amee. mën nañ dem plus plus loin encore ca xamante ne mu gën a nekk ci pénku mën nañ ca def ay ay ay ay ay forage yi nga xamante ne donc dañ koy pomper ak solaire hmm. muy muy muy lâcher ay ndox pour que ci noor sax ci boppam muy toujours donc gajafal xorom bi muy génne xorom bi dem place xorom bi donc suuf si nga xamante ne soxla nañ ko pour béy foofu mën nañ cee béy. kon daal suñ la déggee Sénégal booba ba tey deful benn jéego pour moom boppam ci wàllu ñam. te moo ne ñoo ngi wax fu ñu toll wàllum souveraineté ak moom sa bopp kon avancé wuñu daal buñ la déggee. ah gisuma ko dégguma ko ndax maa ngi tukki ci biir réew mi. Hmm. ah du du am weer bu dugg ci biir réew gisuma ko dégguma ko li nga lu dul vraiment li nga xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy def ci euh, ci ci ci wàkkaam ci ci côté Mamelles yi. Hmm. Euh, boobu tamit euh, ma attirer seen attention que loolu mën naa jur ay jàngoro yi nga xamante ne euh, ëllëg dana lor sénégalais. Hmm? parce que xam nga unité de dessalement. Hmm. dafay produire boo ko defee souvent su suivant méthode bi nga xamante ne moom la ñuy wax osmose inverse. Hmm. boo ko defee méthode boobu de bu dindee ndox mi da nga cee génnee xorom si xorom soosu nga xamante ne da nga koy dindi dafay ànd ak ay détergent. Ah, xam nga eau javel dafa ànd ak euh, chlore. Ah, donc euh, aussi euh, donc xorom soos nga xamante ne dañ koy dindi. maanaam boo jëlee mbubb dugal ko ci ndox. Mhm. boo koy woñ pour que ndox mi génn. Mhm. après nga mën koo weer. donc dan boo ko boo ko boo boo ko dugalaatuwulee ci beneen ndox pour mu set ndox bu leer waaw donc ndox bu leer mhm. xam nga saabu bi day des ci biir kii bi le ci biir ci biir yére yi waaw donc osmose inverse système boobu la. Hmm. donc lu muy génne ci xorom. Hmm. xorom soosu tant que amuñu fuñ ko mënee dugal. Hmm. maanaam mu delluwaat ci biir géej bi. bu dellu bu delluwaatulee ci biir géej bi te nga xamante ne muy muy toq ci kaw ci kaw suuf si. bu nawet di ñëw. Euh, ndoxum walangaan bi laal ko yóbbu ko ci kër yi. mën naa créer euh, radioactivité. radioactivité cancer rek lay jur. mën naa créer ay problème dermatose yi nga xamante ni donc euh, day day nekk ci ci biir dëkk yaram yi xeetu góom ak yooyu voilà mm-hmm. voilà fee fee feebaru waga yooyu mm-hmm. nit ñi di wakkatu rek mm. ah. donc euh, te mën naa indi lorange yu bare mm-hmm. euh, yi nga xamante ni am na yenn yi nga xamante ne ñëwuma leen tudd parce que dina tiital nit ñi quoi donc bon comme nekkuma fi pour tiital nit ñi <laughs> waaw il faut que nit ñi bàyyi xel ci loolu donc système bi nga xamante ni dessalement bi nga xamante ne wax naa leen ko mm. benn méthode bi la mais dafa am ni nga xamante ni man ni ma ko prévoiroon ni vraiment donc déchets yooyu nga xamante ne ñoo war a génn te ànd ak xorom ju bare fu leen mënee jaarale ba nga xamante ne du du laal ndox doomu adama hmm. loolu yëpp mu nga ci schéma yi nga xamante ne jox naa ko. Hmm. alors ñuy dégg booba ba tey itam ay milliards yu bare bari yoo xam ne ñu ngi koy def ci mbay mi donc tey bu ñu déggee ne avancé wuñu aussi nit ñi dañuy laaj lu daaw rek yokk nañu luy tolloog juróom benn fukk milliards 60 milliards euh, nee na dañuy subventionné mbay mi euh, kon xaalis boobu ci ci wàllu mbay lan lay jariñ wala nit ñee yokk ba xëy na bëgg-bëgg itam gën a bari waa déedéet euh, Fatou xam nga li ma la jogee wax la nee naa la problème mu gouvernement Sénégal ak mbay mi Euh, maanaam lépp li nga xamante ne da euh, gouvernement bi dina ci dugg mm. mooy topp mbir a di ko saytu loolu lañ dul def mm. soo demee ci kaw ga nga subventionné euh, jiw jiw gi mm. nga subventionné engrais nga subventionné produit phytosanitaire dafa am ay nit ñi nga xamante ni ci biir nguur gi la ñu bokk man naa la ci limal ay tur yi nga xamante ne da nga da nga da nga yéemu ci yàlla. waaw limal ñu xam ñan lañ. voilà donc ñooñu nga xamante ni. Hmm. fii la ñu nekk. Euh, ñu teg te tuddee seen bopp grand producteur. Hmm. ñooñu ñu nga xamante ne ñooy lëkkaloo ak ministre agriculture. capté euh, semence yooyu. jiw yooyu. Hmm. capté euh, engrais yooyu. dem dikk ko jaayaat. te ñu ñu xam lañu. ñu ñu xam lañu ñu xam lañu. doo ñu wax te ci nguur gi la ñu bokk. wax ñu ñan bokk ci ñi nga xamante ni bokk ñi nga xamante ni ñoo sos. Euh, parti bi nga xamante ne moom moo jiitee réew mi tey. kon dañ ko politiser. mais non seulement politiser mais dañ koy sàcc. Hmm? maanaam alal boobu ci loxo yi ñu lay dem. ñooñu daal di ko vraiment donc euh, tegaat seen opérateurs yi ci kaw ci ci ci ci ci ci gox yi. ñooñu vraiment donc di ko dugal fi nga xamante ni euh, fa nga xamante ni du foofu la war ñooñu ñan la. bare nañ fi de su ma la limalee ay tur rek quoi donc ëllëg ma mbaa du ñoom duñ ma attentat. <laughs> waaw kon ñu jàll ndax dinañ ma attentat waaw bëgguñu ko la attentat kon ñu kon doxal kon yëf yi dañ koo politiser ba xëy na du yegg fa mu war a yegg. non seulement waa mais nee naa la daal au delà de politiser. Uh-huh. mais dafa fekk ni moo vraiment euh, euh, nguur gi moo teg ay kañam. Hmm. ñuy mm. roñ mbir mi. di yóbbu di ko yóbbu. xaalis bi nga xamante ne moo dugg ci subvention boobu xaalis boobu dafay del ci poche ñooñu lay jëm. Hmm. du ci poche béykat yi lay jëm d'accord problème bi loolu la. waaw donc bu fekkente ni nguur gi. bëgg na réellement agriculture lu mu ciy subventionné mu njëriñ ñi nga xamante ne ñoo ci war a dugg ñoo ci war ñoo ci ñoo ci ñoo ci ñoo ci ñoo ci euh, euh, euh, xëy di ci yëngatu. Mhm. mais daf ci da dafa dafa war a saytu. Mhm. war a saytu di topp mbir mi. Mhm. mu éliminer intermédiaire yooyu yëpp. waaw tant que yooyu ñu ngi exister rek intermédiaire yaa ngi exister rek bu njëkk ba coopérative yi ñoo amoon. waaw lu tax mënuñu dellu ci coopérative yi. moo gën a wóor. ah ña nga xamante ne mm-hmm. Mm-hmm. ñooy mbéy ñooy béy ñooñu ñoo war a taxaw ci seen i mm-hmm. mbir ñii nekk ci seen i kanam ñii di leen jiite béykat yi ñoo leen di fal ñu leen di contrôler ku deful ku def ku deful yoon vraiment donc ñu ñu dénoncer la sanctionner la loo jël nga delloo ko da il faut ñu goxiloo ni ñi malheureusement na bu amee ay intermédiaire intermédiaire dafa amul benn responsabilité mais lépp ci biir poosam lay dugg noonu lay fonctionner ci biir réew mi te loolu njiitu réew mi xam na ko mais eh euh, euh, lu tax parce que ñi nga xamante ne ñoo ko sës ñoo koy def am nañu ñu bare ñi nga xamante ni nekkuñu ci ay poste ministériel wala ay poste gouvernemental am ay milliards fan lañ ko jële hmm. fan lañ ko jële fu foofu ci yu mel noonu rek lañ ko jël mhm. donc xam nga man pour ma wax la ni que naka laa def ba xam ko bi ma nekkee ci poste boobu ci secrétariat exécutif mhm. ba ñuy déclarer ni vraiment euh, soxla nañ ñoo ay grands producteurs mhm. ma daal di dugal sama sama carte d'identité leen léegi teg leen ma carte euh, grand euh, grand producteur comment se fait que ñoom mën nañ maa teg grand producteur ba ñu demee ba nga xamante ni bëgg nañ ma jox jiw bi man la leen ko del man la leen delloo ba bëggatuma jiw ba bëggatuma jiw bëggatuma bëggatuma béy. ah oui. Hmm? mais xalaatal Fatou man. Hmm. nekk ci samay bureau Dakar. Hmm. ñu may jox cinq ton jiw. cinq tonnes jiw. te bayoo. ci kaw la. delloo naa leen ko. alors daal di ko yëkkati daal di ko yëkkati jox ko ñeneen yóbbu ko euh, opérateur bi yëkkati ko yóbbu yóbbu ko ci beneen yeneen i gox. Hmm. gox yi nga xamante ne du leen tudd sax. kon daal baykat yi ñoom gisuñu yëf yi. mais su ma su su ma defuloon loolu mënu ma ko xam. waaw ko xam. kon business wala diil bu garaaw moo nekk ci biir mbay mi. mais moo nekk ci biir mbay mi en tout cas ci ci ci gouvernement Sénégal waxuma ci béykat yi wax naa ne laal ci gouvernement Sénégal. Hmm. loolu moom <laughs> parce que am naa ci ay preuve am naa ci ay kayit nga xamante ne biñ ma ko joxee ak yooyu tout ça là vraiment donc kayit yooyu yëpp photocopier naa leen garde naa leen. alors tey am am naa sañ-sañ wax ko. Mhm. Mm. yow tey suñu la tegaloon mbay mi nee nañu fukki weer ak juróom yi ci lañu ñu bëgg a euh, def vraiment ay jéego ba xëy na njëgu dund gi ni mu seeree mu mun a wàññeeku ci fukki weer ak juróom yi euh, lan la ñu ci mën a def. wala ci laajoon euh, sa xalaat wala ay solution lan la ñu mun a def fii fukki weer ak juróom ba nit ñi yëg ne daal mbay mi moom soppeeku na ñu ngi waaj moom sunu bopp. faatu sa man su fekkee ne may wax sama diggante yàlla. Hmm. loolu mënul nekk. Hmm. man su la ko waxee dafay nekk. kàcc ak lu ñu mën a def. ak lu ñu mën a def. loo mënul def ci fukki fukki at. Hmm. ci fukki weer ak juróom. munoo ko def. loolu xel nangu na ko. benn. Mm-hmm. ñaareel bi nguur gi ñu ngi koy taxawal ñu ne dañuy def sous politique souveraineté alimentaire te bindeeguñu sax benn ligne mm-hmm. ci jamono ji ñu ngi ci ay recherche ñaata weer ñoo dem. Mm-hmm. te recherche du gaawee noonu ndax dangay seet. kañ lañuy bind uh, ba uh, document boobu ba mu pare ñu taxawal ko fii nag at bi di jeex. ñaata weer a ci des ñett. kon daal wàññi njëgu dund gi bu dee ci loola lañ ko teg nañ xam ne du sotti. mais nan la mën a nekk nan la mën a wàññi njëgu dund bi am na yeneen i pexe yi nga xamante ne mën nañ ko def. Hmm. yu wuute ak euh, naan teg ko ci kaw. vraiment donc mbay mi hmm. déedéet loolu mënul nekk. Hmm. Ah. alors est-ce que tey am na tamit euh, ay joyanti yoo xamante ni xëy na ci wàllu semence yi ndax euh, jamonoy Pape Abdoulaye Seck par exemple doon nañ dégg ay certifié semence certifiée ak yooyu tudd nga sànq jafe-jafe yi ci semence yi loola itam euh, lan la ci Sénégal mën a def wala lan lañ ci war a def comme comme ay joyanti ay jéego Fatou Fatou ci jamonoy Pape docteur Pape Abdoulaye Seck foofu la mbéy mi sax gën a yàqu ci biir réew mi. aha di. sunu waxante dëgg. Hmm. ku gën a yàq mbéy mi ci biir réew mi moom ca la. Hmm. ca la nekk fi bu fekkente ne mu may dégg xam na li may wax. am na yenn yenn malaan yi ba nga xamante ne boobu nga xamante ne teg nañ ko ci kawam yooyu duma ko yëkkati. Hmm. du ko yëkkati. Hmm. waaye xam na li may wax. te ñàkk jege xam nañu li may wax. Euh, bi ñuy wax ay semence certifiée ak yooyu. mais la ban ban ban yan anam la semence certifiée yooyu di di àgg ci ci béykat yi la lay wax ni gerte gi nga xamante ne moom la ñuy wax semence certifiée hmm. bi nga xamante ne dañ ko doon joxe ay grands producteur hmm. mais boo demee rek boo ko dencee rek ci ñaari semaine hmm. ci ay saaku nga gis ay ay ay gunóor bëtt ko li lay wax rek da dafa dafa nekk li nga xam ne mën nañ ko vérifier ku ñoom yëpp si seen expert yëpp bu ñu leen indee ñu ñu toog ma won leen te munuñ ci wax li nga xamante ne mën nañ ci teggi dara munuñ ci teggi dara dara dara dara dara rax ci dolli la nga xamante ni moom la ñuy béy ci biir réew mi fu mu àggul dañuy modifier statistiques yi di wax ni ngu euh, euh, euh, jiitum réew mi mm-hmm. fii la ñu toll ci mbéy mi nangam la ñu produire ay millions de millions de tonnes de céréales ñu am ba mm-hmm. nga xamante ni yëpp benn dëkk mm-hmm. mas nañ ci jàppante ci benn conseil interministériel ba nga xamante ni yónnee na ma ndaw pour wax ma ni vraiment dama bëggoon ñu déggoo ci statistiques yi ma nekk man duma ci dugg yëfu njuuj njaaj duma ko def du ma modifier benn statistique fii parce que man su may def sama statistique dafay fekk kuréelu àdduna yëpp yi nga xamante ne am nañu accréditation Sénégal dañuy toog ñun ñooy liggéeyandoo ci diiru semaine fukki fan ba ñaari ñaari semaine bu nu paree résultat yi ñëppay dem ak résultat ci waxtu boobu léegi bu ñëpp amee résultat bi après nga dellu soit naan damay modifier yow am nga sañ-sañ pour modifier li nga xamante ne loolu la mbooloo mi liggéey hmm? nee naa ko du ma ko def tey du ma ko def ëllëg ña nga xamante ni yónnee na yónnee na leen ci man ma tontu leen loolu ñooñu lépp ci moom bu ñu tassee ci conseil inter interministériel ci sécurité alimentaire mu daal di hostilité mm-hmm. <laughs> ma nekk nag góor gi li nga bëgg du ma la ko defal du ma la ko defal tey du ma la ko defal ëllëg parce que man du ma fenal njiit. Mm-hmm. booba dañ doon bëgg a def loo njuuj njaaj. ci turam mais la justement loolu nag man du ma ko nangu fa la ñu jaar nag ba may tekkal doon ndombal tànk nag parce que xam nga. Mm-hmm. ba parce que dafa woon président de la république. Mm-hmm. croissance su Sénégal. Mm-hmm. ci kaw agriculture lañ koy sukkandeku. te agriculture bi nga xamante ne donc euh, nekku productif maanaam euh, joxewul li nga xamante ne moom lañ ci soxla pour que croix mu tirer croissance bi léegi nag ngay def il faut que nga modifier statistiques pour que euh, bu ñu calculer croissance bi à partir justement donc du moteur mm-hmm. euh, agri euh, agricole ñu mën a wax ni vraiment donc croissance bi àgg na fi mm-hmm. boo defulee loolu day tag mm-hmm. donc ñëpp ay gis ni que vraiment donc Sénégal amul croissance donc croissance bi ñu déclaré ci Sénégal mm. dafa nekk une fausse croissance du benn dëkk mm. moo tax nit ñi duñ koy yëg ñaare itam mais doo doo ko yëg yow mii di dem marché noo ko koy mën a yëg ah bi nga xamante ni tey jii euh, dugub bi mi ngi toll ci sept cent sept cent franc kilo bi ah mboq mi toll ci cinq cent franc kilo bi hmm. ceeb bi ci cinq cent franc kilo bi hmm. ñebbe bi mille cinq cent kilo bi blé bi mille cinq cent kilo bi soo jëlee foño bi deux mille franc la kilo bi du du du liñ may nettali ah damay dem ci marché. waaw waaw moom kay prix yi nga wax loola la yenn saa sax mu teg tuuti. ah dem nañu ba soble bi toll fii donc deux mille franc kilo. waaw loolu fu ñu ko teg. doy na waax. Hmm? donc euh, problème bi problème bi euh, ça veut dire que donc contrôlé wu ñu dara. Mhm. nit ñi dañoo ñëw vraiment donc koo ci teg dafay ànd ak agenda bu nga xamante ne wuute nag agenda nguur gi. Hmm. nga teg ko ci bopp ministère wala teg ko ci direction général mu ñëw ak agenda boppam. Hmm. nan lay def ba man sama poche fees. li ci des li sama yoon nekku ci ah suma ma poos su feesee nag am na fu ma koy dem am na ki nga xamante ne dinaa ko duyal. Mm-hmm. su ma ko duyalee vraiment donc kooku dootul dootul ñeme di ma wax yenn yi. Mm-hmm. waaw donc loolu moo fi am si Sénégal gi donc nga ma vraiment donc euh, nga ne say mbé réew mi mbéy mi moom moom mooy tiré croissance bi loolu mënut a mënta nekk jërëjëf euh, Ali Mohamed Sega Camara amoon nañu mbégte dalal ci euh, waxtaan wi xam naa ni gindeeku nañu ñu bari euh, ci wàllu mbay meek jafe-jafe yiñ ci am ak xëy na nan lañu ñu war a def ba génn ci ñu bàyyi la rek nga tàggoo waaw di di leen gërëm di leen sant bu baax di wax vraiment loolu kàddu googu la vraiment donc ci président Macky Sall laa koy jublu hmm. politique hmm. réew boo koy tàbb hmm. da koy tàbb ak xel boo koy tàbb da ngay eh, da nga koy def ak nit ñu xarañ mm-hmm. ña nga xamante ni boo jëlee benn décision tey nga teg ko mm-hmm. ëllëg boo andiwaatee beneen décision dañ lay dañ lay fàttaliku mm-hmm. ni bii décision bi nga xamante ne moom nga jël méngoowul ak bii bu bees bi nga xamante ne moom nga indi comme méngoowuñu nag nan la ñuy def ba nga xamante ni vraiment yëf yi mën a dox ñoom war nañ na ci mën a xalaatal ñu xelal la ci nga nga soog a mën a mais bul tëb di annoncé ay politique ñi nga xamante ne ëllëg euh, mënoo ko yóbbu hmm. nga xamante ne da nga ko sumb te mënoo ko naan hmm. wala mënoo ko fóot hmm. euh, bu ko bu ko bu ko jëmale kaw euh, nguur du doxee noonu ay sénégalais la ay sénégalais nga jiite maanaam ay doomu aadama nga jiite ak seeni nopp donc euh, ak seen xel mm-hmm. ku ci nekk ci biir Sénégal dangay xalaat mm-hmm. ca la nga xamante ne moom nga moom moom la moom lañ lay tegal sa kanam ñun ku ku ma tegal benn affaire ci sama kanam mm-hmm. naturellement dama koy seetu d'abord balaa ma cee balaa ma cee euh, euh, ànd ay waaw wala déet loolu am na solo di wax sénégalais nag nañu góorgóorlu ñu xam ni vraiment donc il faut ñu jël seen bopp parce que bu fekkente ni donc dañ koy compter ci kaw vraiment donc nguur gi nga xamante ne xamul fu mu jëm loolu dafay nekk problème il faut que ñu dellu soit vraiment donc delloo si suñu xel euh, xam ci ban tànk la ñu war a taxawee pour euh, wàññi dund gi am na yeneen pexe yi nga xamante ne war nañ ko lal wute ak vraiment donc euh, ci béy ci fukki weer ak juróom mm. pour mën a dund saafara Euh, jafe-jafe dundu sénégalais mhm. euh, rax ci dolli euh, yi nga xamante ne dañoo jànkonteel ak xiif mhm. ci fu mu gën a tar ci doomu aadama yi mu gën a tar dem nañu ba toll na presque demi million mhm. sénégalais ñi nga xamante ne ñooñu ku leen jàppalewulee léegi léegi léegi léegi dana andi problème donc loolu il fo ñu jublu ci génnee ñooñu ci guuta di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf ñu ngi lay gërëm yow itam di la sant ci waxtaan weeg xibaar yi nga ñu fi jox yépp fàttali ni ñu ngi doon dalal Ali Mohamed Sega kamara muy euh, ku xelam màcc ci wàllu sécurité ak euh, souveraineté alimentaire lépp lu jëm en ci wàllu moom sa bopp ci wàllu dund jiite woon na fi itam euh, secrétariat exécutif bu conseil national de sécurité alimentaire bu Sénégal ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci waxtaan wi di dig daje ñu ñu doon déglu dimanche incha allah ci beneen démb tey bii nag mun nañu ko teewluwaat ci réew mi euh, TV officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñu yendoog jàmm jërëjëf Camara jërëjëf